demi-finale Ndiangar à droite Mbine Ndiol Joal à gauche Fatoumata Sarr fii ci Palmarin naa la borom wéef beeg orange money bi borom multi service bi nee naa leen Palmarin ba ci feer soxla wéef wala orange money ci lu ci mata, mi ngi nekk fii ci wetu arène bi Sakou Sarr Palmarin maa ngi lay bëgg Angoura Gaynde Doroka ya, jambar antel Niang Loum la muy way neex na waaye kenn du Amat Baboucar borom koose bi jangare eh, Mbitol Mbitol daan na jangar kontur na ko final 100% soxal nga yow boobu Mbitol a ngi noonu dëbb moo jël fële ca Fatick tey muy final waat fii ci Palmarin